Sainabou mbay is Jafurin now naka lañ doon waxee Jafur si angale Sainabou <laughs> Mbye is Jafurin now wala dimbale leen ma Jafur naka lañ ko dee waxee Jafur. man maama lingeer daal man suma sista bi man daf ma jaaxal billaahi walaay talaay ah suma sista bi ah man daf ma jaaxal man man nu mu nekkee on social media like nu mu nekkee on Facebook it's just crazy man dama dee halat, ba su ma xalaatee kaay bi jeex No, this is this is not the Mama Linguère Sarr I know because um, man man actually Mama Linguère Sarr fu mu nekk daf ma def ma daf ma def ma xalaataat like su man su ma waree nekk ak doomi aadama comme like comme doomi aadama da da da da da lu ma leen dee jox lu ma dee foog ne noonu lañ mel I am I am so disappointed you know I am so disappointed with certain things su ma ko gisee Mama Linguère Sarr mu ko koo def on on Facebook si case bii nii because man munuma understand no no no no no no no no no no mama mama mama mama mama mama you know man nga xamne sa ñi da ñeneñu suñu bëggé ñoo suma pej bu ko won nak su dum non dama la dé wone dédé bay ko suma sister lak yoy nonu you know but mama boy mama yu nga bëgg nekk ñom aissatu job fall ak ñom ki ni nak la tudadi sa ñom mati turapom ah nga xam diga bi ba paré ngay ñew choose ko bi like choose to you know talk something lo xamne moy lolu dal just to defend sey na bu mbay ah just to defend bu mbay kibili dara jotu ko Mama Linguère bu wax loolu kibili dara jotu ko mu ne kibili dafa am dafa am mental problem wala health health issue health issues what how how kibili dafa am because kibili mu ngi wax moo tax mu ne kibili wax naa lu ak statement bu mu joxee moo tax ñu ne kibili dafa am health issue depuis kañ xamuñ ne kibili dafa am health issues bu ñu koy bu mu ñëwee si police bi joxee statement am den waaye Gambia dofuñ meen ñun we are not we are not stupid man. we are not stupid we are not stupid we are not stupid Huh? how comes Kibili dafa am health issue how how comes Kibili Kibili dafa am mental problem boy mama boy, mama mama boy I can understand ne feminist yu bari di taxawal Seynabou May defuñ ko because of Seynabou May just to tell you the truth billahi mané a practice uh, um, um, someone st someone um, studying law dama ron wax ak mom suma suma ben xarit mune ma Fat Diagne mané ko na mune ma gis nga lawyer Gambia yi jaral na len dee jaral na len dee waye mo len gënal duñ lose case suñu jaral ñuy fenn sa dañ ko def mune ma som lawyers ñi xee mune ma gam mune ma Fat Diagne yo xamulo yena a a Gambian lawyer yi jaral na len dañu xam diga bi sa bo de choose to lie only pour ñu pour ñu mun a mun a am digga ah it's just really crazy dafa ja dafa garaaw de yow you just choose to lie just just choose to lie xam nga xalaatal ne booy yàlla mu fa di biggest judge xalaat leen ne ëllëg si biir ëllëg yàlla dina leen judge te anytime anytime kenn xamul fan la naka la ak nan la mun ngaa dem you know kenn xamul kañ la naka la ak nan la de kenn kenn kenn garanti wu ko kenn. kenn xamul kër kañ la moo dee loo dem dem sëriñ mënut laa wax ne bés bi ngaa dee nga dee bés bi wala doo dee bés xanaa yàlla ànd si moo tax looya yi war nañ di bàyyi seen xel trop looya Gambia yi Gambia luñ ko xamee di Gambian moo nekk wax wax dëgga taxaw si yoon si jub waaye tey dañ toolu in stage boo xam ne is very very sad te keesi boobu wane na lu baree bare bari yu tilim nekk si biir justice system bii nii ah soo gisee féministes yu bari ñu taxaw ne dañoo taxaw in solidarity with Sainabou wala nekk si kabudu Sainabou wala whatever it is it's like ñoom ñu ne ñoom ñoom si ñoom ñoom lu ñu am seen mentalité laay wax kay ne indi xale bu fi jógaat ne dañ ko réeb su fekkee digga la si xale bi dafa xale bi du mun a wax du ñeme waaye loolu wax la xanaa xale bi mu buggut a wax waaye xale bi bu waxee bam ñu óor ne lii lu am la ñu ñëpp a see taxawaat soo gisee ñu taxaw si bopp taxawuñ si Bob because of the we just we just he is just our brother but we just want to stand for him because of just just just want to stand for him no. justice. the first one bi ñoo njëkk a taxaw the innocent kid eh, Mohammed bin nga ah may his soul rest in perfect peace Koko no, si boppam moo njëkk that innocent kid moo ñu njëkk a tax ñuy taxaw si justice bi nga xam ne bi xale bu góor bi ni for how many years almost three good years ah ñu ngi ko teg mile two without no evidence bu wone ne moo ko def wala defu ko ah tey Sainabou Mbye barki dema mu dem muy door di complain ah Mama Linguère su fekkoon ne bu depuis Sénégal la ko waxee loolu bind na ko bind na ko bu yàgga bind na ko dafa impliqué boppam ba pare dugal Sainabou rek Sainabou dafa dugal boppam rek you know nañ leen waxante dégga ni leen ragal yàlla who noos man vidéo bu maa def nii dama fee jógee rek yàlla yóbbu ma lu ñoo wax Fatou Jagne dee na man dama garanti loolu su ma dee dama dama dama dama xam kañ ak naka la ak nan la lii la woon nit ki doo war di leen def lii ñu génn Sainabou Mbye musuta xalaat ne musuta xalaat ne dina dem Maltu fekk fa bopp gis ngeen yàllaay buur yàllaay buur moo tax it doomi aadama bi sooy def bàyyi sa xel bu baax a baax a baax si loo xam ne yaa ngi si te nekkul digga rek bisa ngee ñëw xam leen ne lu dul digga rek du mujjee lépp loo xam ne du digga rek du mujjee lu dul digga du mujjee lu dul du mujjee you know this is something loo xam ne you know Gambia dañ nekk di dañ nekk si jihaad dañ taxaw si loo xam ne dañ ñëw génn si loo xam ne lii nañ ko continuer buñ ko bàyyi. nañ leen ko continuer buñ ko bàyyi because xam nga lu xew dafa feeñal yu baree baree baree bare yu tilim yu bari la feeñal. te lu feeñal lu tilim lu bari yooyu noonu bu buñ relax buñ dellu gannaaw te buñ bàyyi because gis nga élega subur yàlla dinañu ko laaj. lii jihaad la élega subur suñ borom daf ñu koo laaj because kenn xamul fan la naka la ak nan la. anytime man mun na dem uyu ji suñ borom lan laa koo explainal gis nga fake life bi dafa bari si biir dëkk bi fii nii yu bon yi dafa bari si biir dëkk bi fii dañu ñoo ko mun as citizens as as good people as ñi nga xam we are believers bu mu nekk rek si wax rek na nekk si jëfin na nekk si jëfin gis ngeen àdduna bii nii ñun kenn ku nekk dafa dee bàyyi ko fi ba yàlla bu pare paree pour jël suuf bi yëpp lem ko ñun ñëpp ñu dem waaye lu nekkul dëgg rek nekkul dëgg du ne man féministe la loolu moo man I have to against the man even though góor gi def na loo xam defu dara wala wala dañ ko bëgg a rek man ma support te gis bi la nekk di man I am so disappointed with certain people. billahi wallahi talaay te gis nga most of them ñii taxaw foofu noonu they know the truth. they know the truth. most of them di taxaw si they know the truth. but they choose to be liars they choose to follow loo xam ne xam nañ ne du dëggate du yoon because of lan ñu ne kenn taxawalu ko ku bon kenn du ko taxawal ne la koo xam ne mu si kàrt sii na bu mbay billaahi walaay talaay moom moo wax ne man dama maree sii na bu mbay you know ki nekk si biir camp Sainabou mbay di support Sainabou Mbye supportut Sainabou Mbye because of bu mbay comme lu ma leen wax rek dafa support because of dafa feel ne dañ ko réeb su yaa yàlla dina leral mo xam si aduna wala si alakhirah te yalla legi haratu bi alakhirah de daf ko def si aduna ñep gis bu mbay is Jafurin naw naka lañ Jafur waxee jafuur si angale <laughs> bu mbay is jafurin naw wal dimbale leen ma jafur naka lañ ko dewe jafur ha ah hay is just really crazy de dimbale leen ma Jafurin. spelal len ma jafurin spelal len ma jafurin J A F U R-I-N-G right waaye waaye waaye waaye suma sister dafa war a over over bàyyi xelam ba pare ba pare man lu ma si gën a jaaxal ñiy faytal sëy na bu mbay yëpp si social media bi lañ nekk doo leen mus a gis ñu appuyé si code bi doo gis ñu ñëw appuyé bi waaw manifesting booy manifesting sax dafa xaw a nice bàyyi ma kii ko jafurin rek jafurin bi moo gën a moo gën a xaw ñànga gisuma gisuma gisuma ben góor bu dof la la wax de gisuma ben góor bu dof bu use this as an opportunity nga ne dangaa ñëw nga ne dangaa ñëw ñu ñu ñu nga da nga ñëw use this as an opportunity yo tamit nga ñëw def naka sulu nonu nga yo dinañ la bay so gisee ñun ñu taxaw ci bop dañ am lu dañ am dañ am ay stuff de te dañ xam xalé bu góor bi ni te amuñ stuff yi ay chala chala stuff stuff from the, the family itself say family say na bu may ak ñooñu noonu yépp ñu ñuko ñu ko surround loolu moo gis ngeen buñ jos génnee ne lifin bi affaire yi réeb la suma maas yi dañ dañ baag stand ci seen boppa wax nañ even sax wax nañoo bopp waaye dañ bàyyi rek justice pour mu def liggéeyam moonte justice dañ dem ba xam ne justice nekkul di dox si biir dëkk bii nii xam nga ñaata nit ñoo nekk prison ba léegi ñu ignore leen te justice taxawut lu defut lu mu war def do you know how many people are ñoo innocent fii am na recently ku ma dégg ne ne bàyyi nañ ko rek and and nañ ko found am am am am I'm déedéet dafa innocent dafa innocent for how many years mu ngi woon si mu ngi prison bi kooku sax xamut lan mooy right am xamut dafa war a the government itself xamut sax ne dafa war a suu dafa war a suu state bi xamut loolu noonu ne dafa war a suu state bi moom tamit ñu fay ko wala ak yooyu noonu it's just crazy man yes deluna na mile mile two she back to mile two su fekkee ne Kibili dafa am mental issue depuis kañ mënu leen a xam ne Kibili dafa am mental issue fu mu nekk lu nekk dinañ ko def rek pour make sure rek génnee Sainabou Mbye waaye Seynabou mbay ñu génne ko génne ko yëpp man moom I have nothing like pour pour wax si loolu noonu ñu Seynabou Mbaye ñu génne ko génne wuñ ko du am jaama Seynabou jaama jaama moo jeex si kaw suuf jaama moo jeex si kaw suuf te yàlla rek a xam àllaaxira jaamaam ndax dina ko fa am waaye si kaw suuf jaama moo jeex even kenn su ko laalu defu ko dara Seynabou mbay jaama moo jeex billaahi Seynabou Mbaye jaamaa moo jeex man maa leen wax loolu man Fatou Diagne man moo du bokk du ma bokk du ko laal du ma bokk si ku ko laal du ma du ma encourage si ñun laal ko waaye Sainabou May nañ leen ko bàyyi ni rek di xool société rek moo koo yar wallahi adduna rek dina ko yar bu ko kenn laal Sainabou May su la neexee sax génne ko si maritu boobu ñoo teg ko kiram ngeen ñun ñëpp ñu seetaan ko di ko xool ñun ñëpp ñu seetaan ko di ko xool ñu xool naka la kii life am di dem kii life am moo nekk in mes ba pare bu la bu la Sainabou bu mu leen jaaxal ay simaay lam ak ay siñam ak yu kenn xamul bu mu leen yóbbu fenn kii nekkatut si boppam nekkatut ak boppam loolu laa bëgg pour ngeen xam nekkatut ak moom. da ngeen koo gis ne muy ñaawle di simaayal nii ñàkk jom rek moo ko amee waaye Sainabou Mbye nekkul di kontaan si biir xolam bi ak si xelam ñoom ñëpp sax ñoom ñëpp whoever is involved in this ñoom ñëpp amatuñ di steady mind. des minds are not steady boy bu leen nangu ku leen dee ndax yéen tamit yéen tamit yéen tamit soo leen jàngutee sax xam ngeen this this this this talent is naturally gifted by God ah, am ngeen loolu every human being am na xel am na xalaatee leen noonu rek kii bu fu mu nekk is desperate dafa soona dafa sona. do not even worry about this man bu leen worry sax she is not okay at all if you think that she is okay ngeen koo toppa yow su demee koot ñun ñëpp ñu ngi xalaat lan la war a nekk dafa war a delluwaat si maytu bi na warut a dellu bu leen loolu booda let that not like bu mu booda anyone bu mu leen booda su leen neexee ñu bàyyi sëy na bu mbay mu dem na Seynabou Mbaye àddunaam moo yàqu ba pare hey yàlla dafa binda doomi aadama ba pare mu respect ko yàlla dafa binda doomi aadama ba pare mu fonk ko yàlla dafa binda doomi aadama ba pare mu bokk si li nga xam ne loolu la gën a fonk si kaw suuf doomi aadama du caaxaan doomi aadama du caaxaan ba kenn kenn du ko foyee nga ne yow di nga rey ba kenn wala ñu ne ñu ne comme man ma ne dinaa rey ba kenn ba pare ma dem noonu ma ba dem noonu si live bi nii even dara jotut ma yóbbuwuñ ma koot yóbbuwuñ ma prison dara xewul man ma nekk nii ma fayin nii loolu amul fen wax leen ma kan moo rey ay nit ba pare mu fayin wax leen ma ko mu fayin ba mu nekk a steady mind am ñu ne digga digga kii mu ngi ok wax leen ma ko soo leen ko xamee wax leen ma ko amul fen yàlla caaxaanewul doomi aadama bi yàlla daf ñu binda ba pare mu fonka ñu bugga ñu ba pare rus ñu déggul leen ko mu ne su ma jaami ñaan leen ma ma may leen am na ñoo xam ne seen nit bu leen leen gis noonu de yàlla daf leen bind ba pare daf leen dee rus lu leen lu ñaan yàlla yàlla daf leen ko dee may am na si nit ñi maa leen ko wax am na ba tey am na si nit am na si nit ñi yàlla ruus na pour wax leen déedéet suñ sukkee sëpp seen jë di ñaan yàlla yàlla ruus na pour wax leen déedéet. subhanallah bu leen foog ne doomi aadama caaxaan la de doomi aadama du caaxaan ba kenn du caaxaan. yalla ya, daf ñu binda ba paré mu wax né mom daf ñu fonka légui éni doomi adama bi nga xamné mom mu né dafa jël bakkani doomi adama nonu rek yeen gis leen dikay wi hé naka lañu rayé nit ñoo ñu musu ñoo am jaama continuer di ray nit rek lañu continuer di def di hé di ray nit rek lolu mo leen di neex biko seen xel dafa jeex fofu la leen yóbbu duñ musa mëna am di steady mind fokk ñu di continuer di rayé rek lolu fofu la leen di yóbbu because normal la tuñ nga fa né ray nit nonu la ray nit nonu la nga ray nit yow yaangi okay billahi do oké do not be bothered by Sainabou mbay belin Sainabou ñu beel Sainabou mbay wala beeluñ Sainabou mbay fu bob mu ne am more than two years inside that prison mu am fa patient Sainabou mbay just days mu nekk di complain hmm? man am not I don't even care uh, or oh amalut ma jeriñ sax naka la Mama Linguère sar waxe ak mbay am not worried about that yóbbuwut ma fen dundalut ma waye xamna ne dafa impliquer bopam ba pare mu seyna Sainabou Mbye because su fekke ne Sainabou Mbye depuis Sénégal la waxe mom ak mom lolu Mama Linguère daf ko don binda since then daf ko don binda since then daf ko don binda since then waye nga bàyyi ba di ma ma barki ma nga ma nga nga de barki o di ma nga binda ko ba pare nga ñëw di wax ne ne eh, affaire bi eh, li fi na keks rek waxul ko de ñu bare ko wax keks rek waxul ko ñu bare ko wax you know di di laajte di di laajte na nga waxe ak mom man mom I am not worried man moom su la neexee ngeen wax ba ëllëg man wooriw ma abaaw dat waaye lu ma nekk di wax mooy Bamba Linguère bàyyi sa xel bu baax a baax a baax a baax a baax lii is something very sensitive ak lu garaaw la yow nekkuloo Gambia yaa ngi outside Gambia ñi nekk ak Gambia xam kees bi affaire bi naka la demee ñu fii ñu nekk ak ñoom everyday yow nag yaa ngee déglu Sainabou Mbye wala déglu famille Sainabou Mbye ñum ñum ñum immediately bokkal te ñu xam si kees bi dara ah xamal ne nekkul da di la wax digga waxal ma Sainabou Mbye soo waxatee ak moom ne ko Fatou mu ne dangaa fen Fatou Diagne mu ne Gambien si ñu ne gëmuñ la dangaa fen bu Mbay